alaikum mbokk yi seen mbokk seen soppe seen surga Mari job ma ñëwaat tey ji fas yéene séddowaat ak yéen si suñu yaakaar suñu ay émission suñu yaakaar waaye si manam ben xët bu ñu ubbi maanaam weeru injil fas yéene séddoo ak yéen li nga xamante ni nekk si injil li yàlla wax si almasi bi li almasi bi insa moom si boppam wax si boppam waaye ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ak moom doon ay ndawam ay taalibeem itamit la ñu wax gis ko seede ko si moom ñu fas yéene ko indil eh, seddoo ak yéen tey bi ñaareelu pàcc bi ñaareelu bés bi su ma ko mënee waxee noonu si weeru linjil kon ñu fas yéene jàll si beneen eh, pàcc si dundu Insa almasi bi si ba tey indil yowaana saar ñaar Aya ben, ñu indi ben netali bu am solo bu am am solo ñuy wax si keman bi nga xamanteni insa defo naka mu donon danaka bi mu ñëk def si dundam si kaw suuf moy bi nga xamanteni soppi na ndox biñ dinañ ci delu ci wadna si indi tuti ay leral waaye loolu lañu fasiyene waxtane tay kon ma jangul li nga xamanteni mom la injil wax si bes bobu mu ni si yowaana saar ñaar aaye benn ñaari fan gannaaw loolu ab ceet am sa dëkku kanaan sa diwaanu galile yaayu yéesu tee woon na ko mu teg ci ni woowoon nañu itamit yeesu sa ceet ga ak ay taalibeem ca biir xew ma biñ ba daldi jeex yaayu yeesu ne ko amatuñu biñ yeesu ne ko soxna si loo ma bëggal ndaxte sama waxtu jotagul yaayam daldi ne surga ya def leen lépp lu mu leen wax foofa amoon na fa juróom benni ndaa yu ñu yett ci doj yu yawut ya daan jëfandikoo ngir seen sangu set ndaa lu nekk mënoon na def daanaka téeméeri litari ndox yeesu ne surga ya duy leen ndaa yi ñu duy leen ba ñuy fees bay rembat noonu yeesu ne leen tànk leen ci léegi yóot ko njiiti xew mi ñu daldi ko ci yóot ki jiite xew ma naan ndox ma yéesu soppi woon biiñ xamul woon fu biiñ boobu jóge waaye surga ya tànkoon ndox ma ñoom xamoon nañu ko naka noonu ñu woo boroom ceet ga ne ko ci xew yépp naan wu neex wi lañuy jëkke bu nit ñi doyale ñu soog a génne yeesu des waaye yow da nga dencoon yi gën a neex ba léegi mu ni si ay si saar fukk ak benn firnde yi am na ci kanan ci diwaanu galilée moo doon kéemaan bi yeesu njëkk def si noonu la wone màggaayam te ay taalibeem gëm nañu ko bi loolu weesoo mu ànd ak yaayam ay rakkam ak i dem dëkku Kapernaum waaye yàgguñu fa kon muy benn pàcc si li nga xam ne moom lañu gis tey mooy kéemaan bi nga xam ne moom la Insa njëkk def si réewum Kanaan maanaam demoon ci seet eh, soppi fa ndox biiñ waaye dinaa ko tënk tuuti rek xëy na eh, dina jur ay laaj yu bare te ñu si bëgg wax yëpp foo mënuñu ko waxee nii waaye dinaa joxe rek tuuti li nga xam ne moom moo xewoon ndaxte bu ñu waxee soppi ndox piiñ si e, xew yi jamono yooyu daanaka li may bëgg njëkk wax sax mooy e, li nga xam xamante ni moo doon seen li ñu daan gën a bay daf si bokkoon raisin te ndoxum raisin boobu moom lañ daawoon nal di ko servir si xew yi te bu ngeen déggee. si li nga xam ne moom la euh, kii jiite xew mi ki doon toppatoo organisation xew mi lekk yëg naan yi mu ni si saar si aaya fukk mu ni si xew yépp naan gu neex gi lañuy njëkk la ñuy njëkkee bu nit ñi doyalee ñu soog a génn ya sa des maanaam li ñu bëgg wax mooy dafa doon reprocher boroom xew mi ni ko da dencoon euh, naan gu neex mi maanaam biiñ bi nga xamante ni wala euh, du biiñ sax laa bëgg wax raisin bi nga xam dañ ko dooraam nal nal gu bees gi mooy ndoxum raisin bi ndaxte dafay wuute ak buñ ko dencee ñaar ñetti fan ndaxte itam ma fàttali ni xew yi jamono yi dafay dem ba juróom juróom benni fan juróom ñaari fan ba lu ko ëpp kon dañ daawoon jël ay ndaa comme ni ñu ko waxee ay ndaa yu mag nal si nal ndoxum nal raisin bi sotti ko ci kon lu bés yi di gën di sore ndox ma wala jus ba di gën di naqari ba fermenté wu te loolu mooy indi ni ñu koy waxee mu mujj nekk biiñ mu mujj nekk biiñ waaye si dëgg-dëgg li yéesu soppi woon ndox ma yéesu soppi woon dëgg-dëgg buñ ko gisee si ni ko nettali bi waxee ndoxum raisin la ko defoon jus rasin la gën a nuru ndaxte loolu la ñuy firndeel loolu la ki toppatoo woon mbirum xew ma itamit doon firndeel kon ma bëggoon indi foofu rek tuuti leeral si loolu euh, xëy na du ñàkk ni di ngeen si am ay laaj waaye ba tey rek mën ngeen ñu bind euh, si suñu numéro whatsapp wala ngeen def commentaire yi seen ay laajte dina leen si gën a xootalal indi leen si ay tontu ma wéyal ba léegi si beneen pàcc si li nga xam ne moom la fas yéene gis tey ji yeesu dàq ñi nga xamante ñoo doon jaay sa këru yàlla ga ma waxaat tuuti ci contexte boobu këru yàlla bi moo doon temple bi temple bi nekkoon Jérusalem te yonent yàlla Suleymaan tabaxoon ko ñëpp xam nañu nettalem yaakaar na te kilifa diine yi dañ doon def sarax saa su nekk nit ñi dañ daan indi ay sarax ngir ay baalu waaye dafa amoon feet tamit bi fàttali bésu jéggi bésu mucc ba mooy bés bi nga xamante yàlla génn woon na waa bànni Israël dëkku Misra Moussa yonent yàlla xaroon géej ga te jàlloon ak seeni tànk dañuy fàttaliku bésu jéggi boobu te feet boobu dafa waroon jub si te bu ko defee nit ñëpp dañ daawoon daw Yerusalem ca këru yàlla ga di def ay sarax ngir fàttaliku bés boobu kon dafa doon bëree semaine yooyu dafa doon bëree ay préparatifs ay waajtaay si xew boobu te loolu mooy récit bi ñuy dégg li fa xamante ne moom la fa insaaf yeesu fekk ak lam fa def mu ni si saar fukk ak eh, ñett màggalu yawut yi ñuy wax bésu mucc ga mu ngi doon jub si yeesu dem Yerusalem dugg sa kër yàlla ga bi mu fa demee fekk na sa ëtt ba ay jaaykati nag ak yi xar ak yi petax ak euh, weccikati xaalis ya toog noonu yéesu ràbb ab yar daldi leen dàq daldi leen koy dàqee ngir ñu génn ëttub kër yàlla ga ñoom ak xar ya ak nag ya mu tasaare xaalis weccikat ya euh, daaneel ya daldi ne jaaykati pitax ya jële leen fi lii sama kër bàyyi bu leen ko def marché taalibe ya di fàttaliku mbind mi cawarte gi ma am ci sama kër baay mu ngi mel ni taal buy tàkk ci sama biir noonu yawut ya ne ko ban firnde nga ñuy wan ngir dëggal ñu ne am nga sañ-sañu def li nga def yéesu na leen daane leen kër yàlla gi ma taxawalaat ko ci ñetti fan ñu ne ko nga ne kër yàlla gi ñu tabax ci ñeent fukki at ak juróom benn mën nga ko yëkkati ci ñetti fan waaye kër yàlla gi yéesu doon wax nekkutu woon ab tabax waaye aw yaramam ci boppam la doon wax gannaaw ga bi yeesu deeyee ba dekki la taalibeem ya fàttaliku la mu waxoon daldi gëm bind mi ak wax jëleen yéesu waxoon bi yeesu nekkee yerusalem ci màggalu bésu mucc ba ñu bare gis kemaan ya mu daan def daldi gëm ci turam waaye yeesu wóoluwu woon ndaxte xamoon na len ñoom ñëpp te it soxlawul woon ñu koy xamal dara si nit ndaxte moom si boppam xamoon na xolu nit kon bii tamit di beneen pàcc si suñu xët si suñu jukki tey di ñi nga xamante ni ni ma ko waxee woon si léegi legi. dañu doon defoon kër yàlla ga dañ ko wecci woon soppi woon ab marché ndaxte jamono jooju ñi ma ko waxee ni ñi dañ daan jóge fépp si israël di ñëw yerusalem te dañu daan yóbbu ay sarax kon nag da doon metti si ñoom ñu jële ay xar ay nag sa seen diwaan di koy yóbbu ci kër yàlla ga kon dañu doon préféré ñëw voyager ba agsi si bërëb ba te bu ñu agsee foofu ñu jëndee ko si foofu te dafa taxoon ñi nekkoon si wet ga ñi leen waroon doon indi seen ay jur di ko jaay comme ni ñu koy faral di gisee léeg-léeg si yenn Euh, wàccaayu yenn xew-xew yi ñenn ñi suñu ay mbokk dëkkandoo ñi jóge Mauritanie ñi jóge Mali ñi jóge yenn réew yi indi seen ay xar ñu koy jaay ci réew mi kon noonu la fa demee woon ba taxoon na bërëb boobu dafa nekkoon dañu mujjoon dem ba dugg ci biir kër yàlla ga def ka ab marché dafa jaay ak jënd ak wecceeku mu amoon business koom bu bari doon fa dugg ba taxoon na nit ñi fàtte woon dëgg-dëgg li taxoon loolu jóg waaye gënoon jublu ci xew-xew ak euh, maanaam euh, yéñ fa doon def te mu fàttali ñu li nga xam ne moom la yonent yàlla euh, Daawuda bindoon ci saboor saboor juróom fukk ak juróom mu waxoon li nga xam ne moom la taalibe yi doon fàttaliku li nga xam ne moom la Insa defoon muy wax kanante ni cawarte gi ma am ci sa kër mu ngi mel ni taal buy tàkk ci sama biir kon loolu mooy li nga xamante ni mooy xët bi ñu bëggoon séddoo ak yéen tey jii si li nga xamante ni moom la Insa def li nga xamante ni moom la Insa wane firnde ak euh, kéemaan yi mu def te li mu doon wax tamit itamit si bu ñu tasee tojee firnde bi mu doon joxe mooy bu ñu daanelee kër yàlla gi si ñetti fan mu taxawalaat ko tamit xëy na bu fekkee ne daal am ngeen si ay mën ngeen ñu fi bind te dinañ leen indil ay laaj ba mu gën a leer ndaxte këru yàlla googu dëgg-dëgg tabaxoon nañ ko ci diiru ñeent fukki at ak juróom benn kon yéesu waxoon ni mën na ko tabaxalaat taxawalaat ci ñetti fan lan la yeesu bëggoona wax kon samay mbokk xarit am di jàmm ak euh, soppe seen mbokk euh, Malick Diop si suñu ay émission suñu yaakaar waaye si pàcc bi nga xam ne dañ ko tuddee injil injil euh, weerub injil ngir yow kon déglul yàlla barkeel la jërë ngeen jëf na yàlla barkeel te defal leen jàmm